bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaamu ala asrafi al anbiyaai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna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 ñaan borom bi subxanahu wa taala mu barkeelal leen barkeelal leen seenu njaboot ñooy nuyu suñu baay baay Ibra Fall foofu ci Touba gi di nuyu waa kër geeg waa tool yeeg am di jàmm yeeg ñëpp rek ñoo ngi leen di nuyu noonu it la ñuy nuyoo mboolem ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel léeg-léeg xel dem ci kenn ñu tudd ko waaye xam nañ ne ni ngeen di bàyyee xel jotaay bi yaatu na lool di ndokkeel bu baax suñu mag Sëñ Cheikh Gueye bu suñu wayjur góor gi gay tàmba ci taxawaay bu am solo boobu ñu doon amal ci àjjuma ji foofu ci dëkk ba fas yéenee tabax juma waaye fas yéenee yokk ay jàngukaay ak yi nga xam ne moo ci aju yal na ko yàlla àggale yal na yàlla jàppale jullit ñi bañ mën caa dugal seenu ñaq ni nga xamante ni noonu lañ koy dugale ci mboolem naale lislaam yi bataalu lislaam bi gën a gëndoo liggéeyu mag ñi gën a jëm ci kanam ndax daanaka lool rek lañ fiy def fi mu ne. mooy sàmm ndonoy mag ñi waaye sàmmi ko yitte sàmmi ko góorgóorlu ak taxawaay yal nañ ko yàlla boole defal ñoo ngi jaajëfal baax Oustaz Alioune Sall ci taxawaay yi di ko masawu ci coono yi conférence yi waaye di ko ndokkeel ci njàngale mi ak yitte ji message baa ngi jàll te le fait que muy jàll ñu di ko jariñoo rek coono boo ci sonn boo xalaatee loolu mu oyof yal nañ ko bokk jariñoo di ndokkeel bu baax ñi nga xam ne ñooy topp baax yépp suñu bindu fajari dimanche dañ doon waxtaane ñaare lu jëm ci wàllu ñaan ndax solo si nga xam ne moom la am borom bi subxanahu wa taala nee na ñaan leen ma may leen waxoon naa ko ci bindu ajjuma bi bi ñuy waxtaane lu jëm ci wàllu juma ak taxawal juma tiyaaba ji nga xam ne moo ci nekk borom bi subxanahu wa taala daa bëgg ñu di ko ñaan ci barab yooyu. ndax wax na ne soriwuma wa isaa saalaka ibaadi anni fa inni xarib bu la sama jaam ni laajee anama man de ku jege laa maa ngi te damay wuyu woote ku ma woo kon nag bu ngeen ma woo rek ma wuyu bu ko defee ñu war a dëkk ci di ko woo ak di ko ñaan ak di ko bàkk yàlla nañu boole nangul ñaare buñ waxtaanu dimanche ba noppi li ëpp ci dimanche ji bu fekkee ñu am ay yitte léeg-léeg sax mu am yu ci gàllankooru ndax suñ digganteeg mbokk yi nga xam ne bëgg nañoo yendoo jëflanteeg ñoom ci continue wu liñ doon waxtaane ndax dañuy introduire ci waxtaan wi léeg-léeg ñu joxe ak ñaan am koo xam ne day woote bëgg nga di ko sawaat benn par benn mu di ko bind ndax amul whatsapp dëgg du ñëpp ko am te itam ñu jotaay bi yitteel bañ koy jëfandikoo ci mag ñi du ñëpp ko mën a jëfandikoo ñoo ngi jégalu bu baax a baax waaye ku doxal am xel tuuti dana xam ne jokkoo ñépp ci fànn googu dana jafe mbokk yi nga xam ne ñoo jëm ci wàllu campagne bi yal na yàlla defal leen jàmm def ndam li te ndam yi desaat ci biir dëkk bi musal ñu ciw ay waaye ñu def ko ci xëccoo bu ànd ak dal rek ndax nit bëgg na mbir ba tàyyi di ca daw te fekk gënut ci moom waaye yéene ju sell daal koo xam ne am nga ko ci te defar ab gox tax laa jóg. te boo ci jotee defar ko yal na yàlla boole la ci ñi nga xam ne dañ ciy jot koo xam ne nag da nga koo bëgg a jot rek def ko mu nekk base politique wala aw wala aw tur wala ndomba tànk gooy mottali ko boo ba nga xam ne du amal njariñ benn njariñ gox bi yal na yàlla soppila la wuutal la lu gën loolu ba nga xamante ne doo ci loru doo ci lore ndax lu tiitar bi rëy rëy rëy bis boo ci jëlee dërëm boo moomut mu nekk musiba ci yow moo tax nit a ngi daw di ca jëm ak di ko xëccoo te mbubb ma mu yenu ji yen ba mu yenu diisaay ba mu diis luy diis ci moom la ëllëg yow mal xiyaam buñ koy audité ña koy jox nag day mel ne dañoo noppalu ndax ñoom dañ ko naan yel ban di yëf toog di ko déglu toog di ko déglu moo tax mbir mu mat a bàyyi xel la ak lu ci man di xew nañ ci dem ak euh, nañ ci dem ak dal waaye dem ceeku yaatu ndax élection moom yàgg na fee am te ku dundaat it da ngay fekkee yeneen te day wéy di fi am. léegi nag tànn ak tànn leen ma ñaar yooyoo fi nekk kii tànn war naa xool ndax tànn mooy tiim yëpp buñ ñee tànn mooy xëy na sax bari na yu baax waaye nga xool li ca gën wala la nga jàpp ne moo li ca gënal tànn leen ma it yàgg naa am kenn ku ne yëkkati sab loxo donte du du du principe bu lislaam ci wàllu xëccoo noonu waaye boobaa yit kenn ku ne na gaaral lu tax lay tax mu ne nañ ko tànn bu ko defee daal di noppalu ñeetaan na des ca ak moom loolu rek mooy li nga xam ne moo ci am solo yal yàlla defal ñu àgg ci jàmm ca élection ya jeexal ko jàmm ña yàlla tudd seenu palu yal nañ falu tam jik seeni gox ñu ànd di wéy e, jàmm ne rek mooy ñaan gi loolu mooy li nga xamante ne moom lañ ciy teg ci ubbite li ñu fas yéene ñëw nag ci wàllu suñu waxtaanu ñaan yi waaye tey ma bëgg a waxtaane lu jëm ci wàllu istixfaar te mooy jéggalu borom bi subhaanahu wa taala waxoon naa la ne ci ñaan yi gën a màgg la bokk fa xultu staxfiru rabbakum innahu kaana xafaara yursili samaa alaykum midraara wa yumdidukum bi wa baniin wa yajcal jannatin wa yajcal lakum anhaara loolu la yonent yàlla noo waxoon kon istixfaar day maye yooyu yëpp bi di baatu istixfaar day mel ni istixfara firu baat yooyu day delluwaat foofu nga xam ne xaaf lay doon ak faa ak raa li muy tegtale mooy asatr te mooy sutura sutura ci li gën a ci li gën a not ci baat bi loolu nga ciy génnee ndax fal xafru alxafru ci boppam day tekki satru te boo jëlee baat yooyu nga xamante ne daa xarante nga wax alxafu asatru nga jëlitam itam man mën ngaa ba ci alxufraanu yooyu yëpp benn maanaa la moo tax dañuy faral di wax ne xafarallahu danbahu xafran wa maxfiratan wa xufraanan <laughs> waaw baat baa ngi noonu kon di baatu istixfaar te mooy sutura mooy baatu saku njéggal mooy baatu sàkku mucc ci borom bi subhaanahu wa moo tax woykat ba ci alxafru mu ne woon fi dilli man canatil wujuuhu lahu malikul muluuki wa malikul xafri loolu la waxoon ibnu manzur di jàngale lu jëm ci wàllu làkk we yi nga xam ne moo ci aju day wax ne aslul xafri at taxtiya wa satru nee na cosaanul baat bi te mooy baatu istixfaar boobu baatu alxafr nee na mooy rek ak muur maanaam ak sutural allahuma ixfir lana maxfirataw wa xafran wa xufraanan wa innaka antal xafuru rahim boo waxee yàlla yal nag ma suturaal yal nag ma jéggal yal nag ma baal yal nag ma aar baat yooyu yépp day génn ci benn baat boobu nga wax ci allahuma ixfir lana te moom yàlla mooy alxafuur mooy baalekat bi mooy alxafaar am na ñu muy wooye ahlal maxfira te ñooñu mooy ñi nga xam ne borom bi jéggal na leen seeni bàkkaar wastaxfara wastaxfara laaha min zanbihi mooy ñi nga xam ne borom bi subhaanahu wa taala jéggal na leen moo tax xifaarun xafarallaahu laha yooyu boo ñëwee ci xadis da ngay fekk ñi di ko fa jëfandikoo te day yenu ak ñaan ànd ak li nga xam ne mooy njéggalu borom bi subhaanahu wa taala ci baat boobu boo ko xaree moo tax astaxfirullaha zanban laysa muxsiyahu rabbal ibaadi ilayhi alqawlu wal amalu loolu la Sibawayhi waxoon ca woyam wa astaxfirullaha zanban lastu muxsiyahu rabbal ibaadi ilayhi alqawlu wal amalu jégglu borom bi subhaanahu wa taala doon lu am solo te baat bi mooy baatu istixfaar bokk ci ñaan yi bokk ci ñaan yi bokk ci yi nga xam ne delluwaay yim am rëy na lool bu ma ñëwee ci xargaak yee ci aju dana bari lool boo demee ci imam Xasaali rahimahullah day wax ne alxafaaru huwa alladi adhara al jamila wa satara al xabia nee na aji jéggale ji muy borom bi subhaanahu wa taala mooy ki nga xam ne day feeñal yu rafet yi suturaalal la yu bon yi yu ñaaw yi nga am suturaal ko feeñal la yu rafet yi jamono jiñ lay tagg ndax jëf ju rëy juraa ju baax ju feeñ jëf nga jëf ju bon ju ko gën a rëy ca wet ga waaye yàlla da ko suturaal ba du feeñ moo tax boo bëggee yàlla suturaal la na suturaal nit ñi na nga suturaal nit ñi nii nga xam ne léegi noonu lañ baree ay kaa kaa mooy jëw rek yi ñëw leen ñu teg kaa bi mooy ñëw leen ñu jëw waaye seytaane moom dañoo topp ba dañuy ñemeloo baat yi nga xam ne jëw moom ñemewoo fee ubbi groupe whatsapp bu jëw groupe whatsapp boo xam ne ñëw leen ñu jëw lay tudd ñëw leen ñu topp jëw yi waaye mën ngaa ubbi nag page Facebook bu tudd topp kaa mooy topp jëw <laughs> ñëw leen ñu jëw waaw nga xamante ne léegi dañ naan ban kaa nga indi tey eh, léegi nag ngay kaa ci nit ñi rek di jëw rek di jëw di jëw di jëw ba xëy toskare koo feeñal ay ayibam ba nit ñi xeeb ko boo fi yàggee dara say ayib dana feeñ ba nit ñi xeeb la boo xamee dara nag suturaal te yàlla tax suñ borom sutural la moom mooy aji baale ji mooy ki nga xam ne mooy feeñal yu rafet yi di nëbbu lu ñaaw yi tey jéggal nit ki ay bakkaaram ak mboolem ay bon-bon yi nga xam ne moom lay def moo tax suñ borom subhaanahu wa mooy ki nga xam ne moo yor mbub mu jot moom nga xam ne kum ko yiir sa benn sikk dootu feeñati sa benn sikk dootu feeñati baat boobu moo tax boo ko xaree ci wàllu ñaan mu yóbbule ci nga jéggalu say bàkkaar waaye sutura si mooy tax mu rus la ba li nga koy ñaan lépp mu may la ko Euh, wax jooju noonu la ko imaam Ghazali indee ci am pireem boo demee ci alxataabi alxaadis rahimahullahu taala day wax ne alxafaaru huwa alladi yaxfiru zunuba ibadihi marratan bada bada uxra nee na borom bi subhaanahu mi aji jéggale ji mooy ki nga xam ne mooy baal jaam ñi seeni bàkkaar waw moo leen di baal tey bu nga defaat bàkkaar mu baal la suñ borom moom du sonn ci ak baale du sonn ci ak baale mooy ki nga xam ne bu lay may du sonn ci lim lay may ndax da koo doyewul dara saa yoo ko ci ñaanee mu kontaan kullama takararati tawbatu min adhanbi takararatil maxfiratu allahu akbar saa yu nit ki baamu ak tuubu bakkaaram borom bi subhanahu wa taala delluwaat baamuwaat jéggal ci moom yoo tuubee borom bi subhanahu wa jéggal la bul yaakaar mukk ne dootoo baax bul naagu bul naagu ne dootoo baax falxafaaru assattaaru li zunubi ibadihi waaw borom bi subhaanahu wa mooy aji baale ji mooy aji yiir ji mooy aji suturaal ji jaam ay bàkkaaram yére bi nga xam ne yére bi yërmande la yére bi nga xam ne yére ñeewante la yére bi nga xam ne yére sutura la nga xam ne du wuññi mukk mbiri jaamam du du wuññi mukk mbiri jaamam lu dul mu nekk mbugal ci moom wala muy koo xamante ne ni ayib ya ëpp na ayib ya ëpp na moo tax boo amee yenn yi ci àdduna yenn gàcce yi niñ koy tuddee wala yenn sag bu sàggeeku bi léeg-léeg sax boo de ab jullit santal yàlla ci loolu ndax waxoon naa la ne daa am ñoo xam ne suñ borom nam mu leen a dugal sawara te du leen fa dugal te du leen fa dugal moo tax àdduna moom mën naa metti ci ñoom waaye yow mal xiyaam ca ñay noos la ñuy bokk yàlla ñu yàlla musal ci bokk ci ñi nga xam ne seen àdduna day naqari seen alaxira naqari ndax léegi nit ki sàggan ba àddunaam naqari alaxiraam naqari yal nañ ci yàlla musal waaw sa àdduna lëndëm këriis metti lool waaye sa alaxira ñëw lëndëm këriis metti lool lu taxawaayu jullit te yàlla lool du programme am ndax léeg-léeg mu dóor nit lu metti ci àdduna waaye bañ koo mbugal ëllëg yow mal xiyaam nga tax bul découragé mukk bul na yàlla damaa fàtte wala sama ñaan yi amalu njariñ wala man nangam nangam ba tax nga jàppe sa bopp ku bon déedéet ku baax nga ku baax nga li fekk sa xel maa ngi dem ak a dellu si ngay xalaat ne jaam nga yàllaay sa buur moo yónni yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam jàppal ne ba léegi ku baax nga tey nga war a gën a mën a baax tey nga war a gën a mën a baax yi la fi gaar yëpp ay ndog ndog rek la ay ndog ndog rek la bu dee jigéen léeg-léeg mu am njuumte yu ko daal ci penc mi waa penc mi xoole ko botu ku bon ba dootu ñemeetee boole bokk boppam ci ñu baax ñi ah kay tey jii nga bokk ci ñi war a gën a baax li nga defoon njuum teg doomu aadama la ni tey juum nit ci boppam mooy def bàkkaar malaayika mënu ko ni tey def bàkkaar ndax borom bi moo ko bindeeg matadi waaye góorgóorlul mat lu mat mat lu jéem a ñëw tuub si ci sa kanam borom subhanahu wa taala ñun ñi jàkkaarloog yow it nag nañ la may sens boobu ndax amoo affaire ak ñun ñun suñu yoon nekkut ci yow waaw suñu yoon nekkul ci yow bañ bëgg laa àtte génne la ci groupe ñu baax ñeeg boole la ci groupe ñu bon ñi ñu solo li ñu amal solo mooy ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ lay may loxo dañ lay jëllaleel dañ lay fàtteel dañuy mel ne yëguñu li nga def ngir nga mën a bokkaat ngir nga mën a bokkaat léeg mu am am na koo xamante ne nañ ma baal daa am daa njuumte am doom ju juddoowut cib sëy léeg-léeg muy jigéen léeg-léeg muy góor waaye penc mu muy dund duñ ko baal bàkkaar def rek bàkkaar dong la li muy rëy rëy bàkkaar la te borom bi subxanahu wa taala la amal affaire te mën naa am sax jéggal na ko nag mën naa am sax suñu borom baal na ko bu yàgg waaye nag nit ñi moom bëgg koo xoolee ca bàkkaaru démbam ba ba tey rek te mën naa am yow yaa ngi fiy jëw yaa ngi fiy fen yaa ngi fiy wax lu naka su noonu yaa ngi sàcc alal yaa ngi def nangam waaye kii moom jàpp nga ne dootu baax ah kay bul gëm mukk ne dootoo baax la nga defoon bàkkaar la tuub ko ta sant yàlla. tuub ko te sant yàlla bi mu la fi bàyyee te góorgóorlu rattrapé sa jëf yooyu ak jëf yu baax borom bi subhaanahu wa suturaale suturaalekat la jéggalekat la bëgg na itam ñuy suturaale ak ñuy jéggale waaw bëgg na ñuy suturaale bëgg na ñuy jéggale ki ko jaaxal kay moom yàlla bu doon am na ku ko jaaxal mooy ku yaakaar ne dootu baax nit koo xam ne daa yaakaar ne moom dootu baax boole boppam ca ñu bon ña dem toog bu yàlla doon jaaxle kooku dana ko jaaxal waaye loo tilim tilim tilim moom am na ndox mu doy sëkk mu la mën a fóot waaw am na ndox mu doy sëkk mu la mën a setal ba nga set moom ngottut lim yor xatut te seexluwu la te la penc mi sax ku baax wóoru laa seexlu ndax bu fekkente ne ku jàng diine la bay jàngale wala muy waaraate wala mu bëgg baax ba noppi ne man ñi baax dong laa amal affaire kon moom garab yi mu yor kan la ciy faj bu dee daa yor garab yuy faj bopp buy metti te ñi wér ba dara dalu leen dong la amal affaire ba noppi yor saak bu def ay garabam koy faj kon nag sa garab yi balaa am njariñ da ngay dem ca fa ñu ca tawat ña waaw dangay dem cee ñu tawat ña boo leen ñëwee nag bañ jëppile it duñ naan garab yi waaye faaw nga maslaa ak ñoom jaar ñoom fi nga war a jaar ñoom ba mën leen a soppi jaar ak ñoom fi nga war a jaar ñoom ba mën leen a jariñ te doo leen atte moo tax bu kenn atte kenn nañ bàyyi jaam yi ak seen borom subhanahu wa taala te war a soññee di soññee al istixfar mooy sàkku borom bi subhanahu wa taala mooy sàkku njéggalu borom bi subhaanahu wa moo tax waxoon naa ne ñaari baat yi am na ak wuute am na baatu xufraan am na baatu alafu te mooy jéggalu borom bi subhaanahu wa am na jëllale jëllale bu ko nit di def mooy koo tooñ mu mel ni yëgut ne tooñ nga ko nga xam ne waa ji da nga koo joggi waaye moom day mel ne sax santiru ko nga jàll mu faxas tànkam ni ci yàlla du wax dara loolu mooy jëllale jéggale nag mooy yëg ko nga ne ko jéggal ma mu ne la jéggal naa la waaw mu ne la jéggal naa la jëllale nag day mel ne dara xewut waaw kii jëllale moom day mel ne dara xewut sax nag moom day bàyyi rek mu sedd day bàyyi rek mu sedd moo tax borom bi subhaanahu wa taala jéggalekat la waaye jëllalekat la bëgg na itam ñuy jëlale bëgg na ñuy jëllale waaw fa'fu anhum wastaghfir lahum waaw fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shaawirhum fil amri loolu la bi alayhi salaatu wasalaam moo tax mbokk yi nañ bari lool euh, lu ñuy def istixfaar bari na ay aaya yoo xamante ne soññi nañu ci bari na aaya yoo xam ne soññi nañu ci ndax asheytaanu yaidukum alfaqr wa yamurukum bil fahsha seytaane di leen di dig ak ñàkk ba noppi di leen digal def lu ñaaw waaw seytaane moom loolooy liggéeyam boo jógee bëgg a def lu baax ci sa alal seytaane ne la da ngay ñàkk même sax boo àggul foofu seytaane moom foo tollu da lay tiitloo gis nga nii ñu tiite ñun ñëpp tiit nga xam ne seytaane day fexe bañ tiit ba àdduna doo fi nekkee ak dal doo fi nekkee ak dal yaa ngi naan kañ laay am kër man kay eh kër kay foo dégg terrain wutil seytaane gën laa tiitloo seytaane da lay gën a tiitloo bu ko defee nga naan eh, moom kay soon bu ma ko am baax na moom kay bu ma dundee ba am kër seytaane ne la topp ci rek nga topp ci rek waaye fàtte nga ne kër gi moom da nga ko fi yi néew na loo koy tabax dëkk ci ñeen fukki at wala juróom fukki at yal na yàlla defal leen ko te defal ñu ko waaye kër ga nga jëm ca biir xabru ya la ca biir xabru ya la waaw barki démb bi ñu rob euh, sama rakk yaay jooju soxna maam xëri faal nga xamante ne foofa moom daanaka nekk na rek ab famille te boo demee yoo fi mu ne gis benn ruq boo xam ne dañ ko miire mu wër ab famille lëm mu nekk fa nga xam ne yow mi ñëw di siyaar si sa yaay boo moytuwul sa baayee ngi fi sa benn tàntaa ngi fi kee sa frère la nga xam ne waa kër gi famille bi niñ dëkkee woon tey ñoom ñëpp a ngi ni bokk tëdd xanaa war ngaa xam ne di nga ñëw nag ndax li indi ñii ñëpp bàyyi dala fee bàyyee ndeegun dala fee bàyyee ndeegun waaye yow itam da ngay ñëw yow itam da ngay ñëw sóoraale ko am na solo lool yàlla xam na ko dana tax nga góorgóorlu ci àdduna ba rafetal ndax xam ne dangay dem bàyyi ko fi te war nga fee bàyyi aw waaye dana tax nga waajal tray boobu waaw dana tax nga waajal tray boobu moo tax bari looy def istixfaar baax na loo bëgg ñu defal la ko boo faatoo baye moon nga tàmbali koo defal sa bopp ndax nit ñi ma gis moom amatuñ jot ñi ma gis moom bàyyee leen seen bopp wóorut waaye nanga teela wut ay xarit nag na nga teel a wut ay àndandoo yi nga xam ne bëgg nga boo faatoo ñu fàttaliku la ndax xamoo ñoo fi bàyyi am na groupe boo xam ne bu dee ca nga bàyyi sa bopp def leen ñuy ay àndandoo ba faatu ñoom ca lañ nekkoon dong la ñu nekk buñ lay robit ca loola la ñu nekk boo moytu duñ latal a ñaanal duñ la tala duñ la tala fàttaliku waaye ci seen i programme la ñu nekk nekk ci seen nam nu mu nu mu tuddati ya ngir ma bañ a wax benn programme di tudd benn groupe waaye addunaa ngi fi ba léegi te jeexagut te day topp nit ñi ba ci armeel yi waaw adduna xaaratuñu bu njëkk bu nit faatoo adduna du ñëw nit ñi dañuy ragal dañuy tiit dañuy jaaxle dañuy xalaat ki faatu léegi bu nit faatoo buñ koy sang addunaa nga fa buñ koy rob addunaa nga fa bu ñuy seede addunaa nga fa dootuñu la tal bu ñeen nañ def ñeent fukki lixlaas ñaari minute du ko mat ñu noppi ñu ne nañ def ñeen ñeenti alam nasra ñetti minute du ko mat niit ñu noppi buñ tàmbalee wax ci ay seede malaaka yi war a déglu gaa yi faxasu dem ñibbi sarax yi moom boo fa demee saraxalatuñ sarax yi moom xàmmeetoo leen ak ngénte yi moo tax ku ci am fulla sax doo nangu woote sarax waaw ndax ndaxte tuddatul sarax xawaare la tudd ay nit ay daje di waxtaan yendu ci seen i whatsapp ak seen i téléphone di coow ci politique beeka jëw ba ngoon jot ñu lekk naan daal dem ñibbi mu jeex moo tax bay bon nga tànn programme de li nga bëgg a dajeel yow mal xiyaam bay bon nga teel koo jëfal sa bopp bay bon nga teel koo jëfal sa bopp yàlla nee na fii loo fi indi ma dencal la ko waaw yàlla nee na wóolu leen ma wóolu leen ma wóolu leen ma ngeen avance lu ngeen yóbbante naa leen ko dencal wa maa tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allahi waaw lu ngeen jëf ci lu baax lu ngeen jëf ci lu baax yàlla nee na mi ngi fi ma téye mi ngi fi ma téye du ma ko jaawale amul koy duróor mu dem ca moom amut compte beneen buñ koy werse malaaka yi duñ ko jaawale waaye mi ngi fi mi ngi fi ma téyel leen bu ngeen ñëwee jotti moo tax boo bëggee ñu wàcceel la kaamil teela la jaxasoog sa bopp ak alxuraan léegi jaxasoog jàngkati alxuraan yi nga dégg ñu koy jàng te nga jàpp ne ñu ngi sellal fasanteel ak ñoom kóllëre waaw fexeel ñu xam la waaye fexeel a jiitalal sa bopp jëf jubaax baax boo demee ëllëg yow mal xiyaam dajeeg moom yal nañu yàlla boole nangul yal nañu yàlla boole jéggal rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina azaba annaar ñaan googu la joxe joxe woon nañ ko fi ay yoon defe naa ñu bari mokkal nañ ko ndax daa gàtt waaye lépp lu nit di sàkku mi ngi ci ndax nee nga yàlla yal nag ñu defal aw yiw ci àdduna yal nañu ko defal alaxira yal nag ñu musal ci mbugalum sawara te loolu mooy affaire bi rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana waqina azaba naar yal nañu yàlla boole nangul yal nañu yàlla boole sàmm noppi nañ ngir déglu say e, laaj wala say waxtaan ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu istixfaar wala luñ ci man ci wàllu jàppalante ci ak yow boo ñu wooyee ci 77 439 04 07 77 439 04 07 ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax te di leen jéggalu ñaan borom bi subhaanahu wa taala mi yor njéggal yàlla nañu boole jéggal yàlla nañu boole suturaal may ñu kendalu jàmm jaajëfal imaam alxaaji oustaz Alioune Sall jàngalekat bu mag bee mag ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu yokk koo sàmm te dëgëral ko moom la ñu bàyyi yéen mu ànd ak ñun ci waxtaanu fajar yi ñu ànd ñun ñëpp déglu ko allahuma salli ala sayidina muhammadin wa ala ali kama la nihaaya li kamalika wa adada kamali seen mbokk Mbàkke si la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu